d'accord alors monsieur Sarr lan moo euh, ci li nga xam ne mooy information du jour Issa waaw li gën a sama attention si li nga xamante ne si Issa wax na ko mooy jàpp bi ñu jàpp Ousmane Sonko di ko masawu bu baax a baax a baax di wu bépp patriote mais également bépp sympathisant bépp nit ki nga xamante ne rek euh, yaa ngi am sa mbëggeel jëmale ko si Ousmane Sonko parce que boo xoolee jàpp bi nga xamante ne si moom nañ ko jàpp tegul fenn parce que Ousmane Sonko je pense que ni liñ ko téyee fële ne li nga xamante ni mooy si si si kaso bi parce que prison la nekk te prison boobu noonu balaa mu fay nekk dañuy ñëw tuuti en recul parce que prison bi commencé wala ba nga ko jëlee yóbbu ko si bi kotaan mhm. mais moo ngi tàmbali depuis bés bi nga xamante ne jël nañ këram barricade ko parce que loolu rek prison la jël ay policier teg sa buntu kër barricade la pendant des mois munoo génn say loolu rek prison bu mag la. donc Ousmane Sonko nañ koy ñaanal yàlla li nga xamante ne dal na ko démb parce que yëg nañ ko si teel ni am na malaise. perdre na connaissance tey jii moo ngi ci coma dañuy ñaan yàlla rek euh, yàlla fëgg boppam mu jug. parce que tax xol day fees bay wax si loolu parce que ku xam yoon rek xam ni Ousmane Sonko nañ ko tooñ dañ ko tooñ ba si kanamu yàlla di wax nii rek euh, loolu noonu joxul benn gëdd Sénégal parce que état de droit tey dafa nërmelu parce que état de droit dafa wax li nga xamante ne si justice bu ko décider rek que ça soit l' individu mi man mi yow mi Issa que ça soit l' état bi nga xamante ne euh, dafa nekk benn personne morale maanaam décision de justice boobu noonu das ko war a wëyal da ko war a nangu. Mm-hmm. dafa mel def na transition ci mbirum euh, direction générale des élections la fa xew. ginnaaw ba décision de justice daal di génne. Mm-hmm. mais dañoo gis tey ki nga xam ne mooy euh, professeur Doudou Ndoye wax ne. Mm-hmm. les les les avocats d'Ousmane Sonko lu ñu waroon gën a ce sont pas les fichiers de parrainage mais dañoo mm-hmm. waroon laaj li nga xam ne mooy intégré waat Ousmane Sonko ci les fichiers électoraux mm-hmm. parce que bu fekkee euh, dañ ko génne ci fichier bi kon mënuñu recevoir li nga xam ne moom mooy fiche de parrainage waaw mais boo xoolee décision de justice bi lan la wax la réintégration immédiate de Ousmane Sonko maanaam juge bi dafa ñu intégré waat Ousmane Sonko ci fichier électoral bi mu dem jël fiche de parrainage am comme tout bon candidat mm-hmm. loolu ça a été clair. est-ce que doon intégration bi lañ gën a mettre l'accent avant ñuy euh, dem ci li nga xam ne mooy. retrait euh, des fiches bi xam nga décision justice bi la décision n'est pas suspensive. elle doit s'appliquer immédiatement et le juge il l'a bien dit dans sa décision réintégration immédiate. Mm -hmm. c'est ce que le juge a immédiate loolu la bind du ñu ñoo ko bind. Mm-hmm. juge moo ko bind c'est la justice sénégalaise qui a dit cela et l'État doit doit à cette décision de justice là parce que loolu mooy état de droit. Mm-hmm. état de droit nekkul nit ñi rek nañu war a soumettre ci ci droit. Mm-hmm. mais état en tant que personne morale moom it day dem am agent judiciaire de l'état bi nga xamante ne moo koy xeexal bu ñu ko condamné mais da ko war a nangu. Mm-hmm. mais tey jii bu ñu demee ba état bi nga xamante ne moo war a garantir le droit dem ba nangootul et décision de justice. mais la ça devient critique. maanaam sunu démocratie dafa dafa dafa dee. sunu état de droit dafa dee parce que état de droit du lu dul. euh, un un système. Mhm. institutionnel bi nga xamante ne la le, le pouvoir public la puissance publique est soumise au droit. Mhm. alors fort est-ce que du fort de ce constat moo tax ngeen mettre en place seen plateforme Lacoste bi nga xamante ne. Mhm. dafay xeex pour Ousmane Sonko euh, candidature am daal di nekk benn fekk. waaw xam nga nit munoo di ànd ak moom ba mu am ay jafe-jafe nga woon ko ginnaaw loolu bokkul si gor bokkul si dignité comme militaire yi ni ñu koy waxee rek. booy xeex ak nit ci champ de bataille mais doo ko abandonné daw. da war a xeex ak moom bu deewee nga dee ci wetam. lakos loolu la def tey jii ñu nekk ci lakos yëpp nañu boole seeni doole boole seeni kuréel pour soutenir la candidature de Ousmane Sonko. parce que nag nañoo jàpp ni Ousmane Sonko ba tey jii fii may wax ak yéen. il n'a pas perdu ses droits civiques et politiques. amul benn loi wala benn décision de justice bi nga xamante ne wax na ni Ousmane Sonko ñàkk na ay droits il est éligible il est électeur donc dañ ko jox ay droit am ak kaam ak yelleef yi nga xamante ni moom la am. dañ ko ko delloo. jox ko ay fiches de parrainage mu dem parrainer comme tous les candidats bu fekkee état bi kañ ragalu mais nañ bàyyi Ousmane Sonko dem lu ñuy tiit. li ñuy daw bay daanu. c'est ça la question que les Sénégalais doivent se poser. lan la état di tiit Ousmane nekk candidat. c'est ça la vraie question. oui euh, ñi ngi wax sànq sax ci nga xam ne moom laay man ñu fàttali ne c'était en guise de soutien aux mm. yi nga xam ne ñoo nekkee ci camp pénal bu Liberté 6 di fa amal xiifalu ñaxtu ndax seen i lañ jàpp que ni euh, c'est euh, inhumaine même moo tax ñoom ñu amal xiifalu ñaxtu. gis nañu mm. ba mu ko njëkkee amal jour yi nga xam ne moom la defoon daanaka yàgg na ñu demandé ko ba mu mujjee même bàyyi xiifalu ñaxtu bi que bii mm. da ngay reveniraat en tout cas ci yooyu li nga xam ne moom la ñu bari yi doon sàkku mooy mu bàyyi xiifal wala nga jàpp que ni c'est l'ultime moyen pour. Euh, pour se battre xam nga nit ki tamit booy xeex maanaam gànnaay yi nga am moom ngay xeexee doomu aadama booy xeex gànnaay yi nga am moom ngay xeexee parce que Ousmane ko tey dañ ko dañ ko jaay doole yóbbu ko prison tëj ko xañ ko ak kaam ak yelleefam donc moom lan la am pour xeex mooy grève de la faim mais est-ce que c'est la bonne méthode parce que aussi. grève de la faim ak des milliers et des milliers de personnes yoo xamante ne yaakaar mooy seen candidat. mais xam nga grève de la faim mi ngi mi ngi mi li nga xam ne mooy son état de santé. Ousmane mhm. que mënul de la faim parce que leen teg du yoon moom muy toog di xool jigéen yooyu noonu en tant que seen leader dafa war a ànd ak ñoom ci xeex boobu ñuy xeex parce que bu ñu fàtte ne ay jigéen yoo nekk campagnol di grève de la faim. Mhm. ay ay sœur ay doom ñoo fa nekk ay jigéen man damay laajte ana association de défense des droits de la femme fan nañ nekk Ousmane Sonko en tant de la justice euh, soxna la. waaw avocate de ce quoi. kooku xam nañ fu mu far te jox cër jigéen taxu ko jug. ah bon jox cër jigéen taxu ko jug parce que jigéen yee di grève de la fin si ay parce que tey jii boo xoolee ba xool li ñu leen tey noonu mën nañ leen may liberté provisoire mm-hmm. parce que dawuñu mënuñu génn Sénégal. mais nga téye leen foofu di leen xoqatal nga téye leen foofu di leen métital. kon dañ leen di métital tey jigéen yoo xamante ne dañuy yóbbu seen i ñuy dem di namp. kon dañ leen dañ leen di métital foofu xam nga tey jii dañ leen di métital parce que tey jii boo amee doom ñu koy yóbbu ci prison nga koy nampal mais mel kooku liberté provisoire mu ngi ci dëkk bi demul fenn naaw seeyut heure bu ko justice soxlawaatee mun na ko woo heure bu ko justice soxlawaatee mun na ko woo. donc c' est des actions yoo xamante ne si mais cela ni amul yeneen jigéen à part la politique yu ñuy tëj kaso yu yore ay doom ak yooyu noonu. non xam nga yoon yoon la. même sans la politique loolu day am quand même. xam nga tey jii bu ñu la jàppee atte guñ la. Mhm. am nga droit ñaan liberté provisoire ba ñu atte la bien sûr. loolu yoon moo ko wax Ousmane Sonko waxu ko Adama Sarr waxu ko Issa Tine waxu ko Soxna Khady waxu ko. yoon moo ko wax donc jigéen yooyu noonu nekk ci ay situations yu difficile kaso yi fees dell. c'est ça la réalité les kaso sont bondés de personnes nu ñu fay dëkkee nu ñu fay nekkee amul benn hygiène amul santé amul dara nekkin bu bon la mais nit ñi nga xamante ni Kër Massar yu ma jógee 88 jeunes lañ jàmm depuis 8 mois 88 c'est manifestation rayoo nit jaayoo drogue defoo li nga xamante ne dañ koy teree parce que la manifestation et encadrée par la loi. manifestation lañu jàppee 88 jeunes au euh, à Kër Massar. mooy manifestation Kër Massar ba. Kër Massar depuis 8 mois ñoo ngi si kaso bi mais manifestation nekkul crime wala benn délit boo xamante ne mënuñu bàyyi nit mu dem. mais manifestation Kër Massar boobu sax c'était autorisé. waaw xam nga loolu mooy wane ni euh, état de droit dafa dafa dee Sénégal démocratie dafa dafa dee Sénégal mais loolu noonu yëpp boo gisee mi am parce que nguur gi jeex la. Mhm. nguur gi daanu ñu koy jiite maanaam dañuy réer. alors seen plateforme euh, Lacoste bi ngeen. Euh, teg mm-hmm. depuis démb yan mécanisme ngeen nar a en place ba mun a euh, xeex li nga xamante ne mooy tere bu ñu nar a tere Ousmane Sonko mu nar a doon candidat. waaw xam nga lakkos bi moom xeex bu njëkk bi loolu la xeex bu njëkk bi mooy Ousmane sonk génn nekk candidat parce que ba fii may waxee ak yow soxna Khadija amul lenn li nga xamante ne sii nee na Ousmane Sonko nekk candidat. amul benn micro sa micro dafa fay. voilà amul benn décision de justice bi nga xamante ne day interdire Ousmane Sonko le président Ousmane Sonko pour mu nekk candidat donc lakos boobu noonu dafa boole ay kuréel yu bëri. est-ce que les les membres de Askan Wi sont membres de lakos. non non non non voilà. de Yewwi qui ne sont pas membres de de lakos. boo xoolee à peu près ñi génnoon def seen candidature yëpp. Mhm. boo xoolee bokkuñu si lakos. Mhm. y a les alliés de Ousmane Sonko les alliés naturels. parce que boo xoolee tey avenir docteur Cheikh Tidiane Dièye ak Ousmane Sonko ba ñuy ànd je pense que depuis 2017 ñoo ngi ànd. dem nañ élection 2017 dem élection 2019 il a été même son directeur de campagne donc am nañu relation yoo xamante ne ay alliés nañu. peut-être politique mënul tax ñu changer seen i doxalin politique mënul tax ñu changer seen jëfin donc yàlla y a les alliés d'Ousmane Sonko les Maïmouna Bousso les Dambodj les Habib Sy. le président Habib Sy Dianté ñoom ñëpp nañoo boole. ne Ousmane Sonko bii kat ñu nar xeex ñu nar a xañ ak kam ak yelleefam pour mu nekk candidat ñun dañuy taxaw xeex ko ba mu nekk candidat parce que yoon moo ko may sañ-sañ mu nekk candidat comme tout bon citoyen seen stratégie bu njëkk mu nar a dal lool des manifestations des marches waaw euh, dem comme li nga def nii ñëw ci plateau yi wax euh, lan mooy waaw bi mooy xeex stratégie bi kenn si li nga xamante ne si yoon may nañu ko xeex si li nga xamante ne mooy yoon may nañu ko jàpp na nguur gi dina dellu ginnaaw parce que nguur gi amul lu muy dellu ginnaaw ak lu mu dul bañ a dellu ginnaaw wax naa ko sànq. lànk nañ ne duñ jël fii su parrainage Ousmane Sonko def na fa grève de la faim. mais c'est c'est euh, illégal répondre ñu ko ba dafa mujjee après sax. ginnaaw bu ko ñu bari ñaanee mu bàyyi grève bi. tey mu delluwaat ci grève yéen ngeen def seen benn kuréel tuddee ko lakos ne da koy jàppale. est-ce que loolu yëpp am ngeen ci yaakaar que ni. Euh, nguur gi li def nguur gi parce que une décision de justice en tant que fonctionnaire da ko war a appliquer entièrement sans murmure. dans un état de droit normal normal donc dem ñi bañ a jox parce que DGE du ñoom ñooy wax ki nekk candidat ak ku dul nekk candidat jox Ousmane Sonko fiche de parrainage taxul ñoom ñu engagé seen responsabilité parce que ki nga xamante ne mooy àtte article bu mujj gi mooy le conseil constitutionnel mais au moment où tous les candidats ñoo ngi sur le terrain di parrainer malgré que seen parrainage demeewul noonu parce ñun ci terrain bi lañ nekk xam nañ bu baax lay xew. am na benn candidat bi ko wax nee boo xoolee ñoom ñëpp kenn eggalul vingt pour cent y a un candidat déclaré qui l'a dit nee na ñi nekk sur le terrain yëpp amul kenn ki nga xamante ne eggal nga 20 pour cent si lañ la see ay parrain campagne ah, Khalifa Sall mi ñu ñoom nee allah ci parrainage bi gis nañ ci seen bopp ñoom waa ñu bu baax xalaatuñu ñu ay invalide loolu loolu moom pour ay parrainage loolu dama koy dama koy nangu di nuy waale bu baax aussi le président Déthié Fall mu doon aussi koo xam ne ku am valeur la ku am la di ko nuyu bu baax a baax a baax président Déthié loolu nañ ko xëy nangul mais boo xoolee quatre vingt pour cent des candidats quatre vingt dix pour cent amuñu pour cent. loolu mooy wane nii rek euh, état de droit dafa dafa nax saay. dafa nax saay bu baax a baax a baax et pour revenir sur l' état. Ouais. n'a pas la prérogative ou bien la DGE de refuser les fiches de parrainage au au candidat Ousmane Sonko parce que y a une décision de justice qui a été dite par par la magistrature sénégalaise donc on doit obéir entièrement totalement cette décision là sans murmure. Maître Doudou Ndoye li mu wax c'est très important xarit mi ngi koy rappelé sànq. il faut ñu xool ndax déjà. décision bi jëfee nañ ko maanaam réintégré ko ci fichier électoral bi laata même. ñuy wax waxu parrainage déjà déjà génne boobu génne boobu du yoon.

ils sont de gagner du temps pour pour jéem a créer ay affaire Mame Mbaye Niang bi bëgg a def tout ba Ousmane Sonko du am fiche de parrainage parce que Ousmane Sonko bu amee fiche de parrainage ba ñu génn di campagne parce que campagne lay doon parce que bëgg ko jotoon tey suba ñoo ngi sur le terrain Sénégal yëpp dinañ génn dina am évolution populaire bi nga xamante ne si ñoom amuñu ko loolu la ñuy bañ parce que tey usman Sonko bu jotoon fiche de parrainage am suba di ngeen Sénégal nu muy xumbee nu muy rëbee. parce que tey jii parrainage bi commencé na depuis des semaines. munoo gis ku